maam ku na avant réinsertion am na lu am parce que gis nga xale yi nga xamante ni jàng nañu ba am bac actuellement ñi ngi bëgg a def euh, cycle bi nga xamante ni mooy bi gën a mag mais mënuñu ko am parce que université prévoir uñu leen fa pour ñu war fa mën a jàngi kon actuellement te gisoon nga seen euh, ñaxtu yu ñu doon ñaxtu muy waa UNAS bu Thiès ñëwoon ba fii def marche léegi ñu yow nag yan taxawaay la ci état war a def ak it seen gis-gis ci ñooñu. xam am. vision bu large ci politique d'éducation. absolument moo tax ba bu ko bu defee classe yi itam ci primaire bi. def ko ci moyen secondaire euh, def ko ci secondaire bi mm-hmm. itam daf ko war a xool naka la koy defee ci école yu mag yu maanaam ci université yi. ndax dañuy wax rek àq ak yelleef moom mm-hmm. benn la kenn mënu ko xar ñaar. Mm-hmm. mënoo itam xale bi dafa am laago. fii lay yem ci njàngam. ni ñuy waxee ni na ñeneen ñi jàng ba am ay diplôme mën a euh, aar seen ëllëg noonu la xale yi am laago war a jàng ba am diplôme yu kawe itam mhm. mën a aar seen ëllëg mhm. euh, reportage bi nee na nga xam sa bopp euh, liggéey ba mën a jariñ sa bopp mhm. waaye suñ ko mayulee chance mu eggale njàngam fu kawe mën na am diplôme ba muy am du tax mu am yenn liggéey yi wala bu ko amee ba pare itam dabar mhm. insertion boobu mhm. dañ ciy taxaw ndax dafa am solo bu ko amee ba pare fu ñu koy dugal tey bëri na ay service yoo xam ne da fay dem dañ lay xool ñu mhm. la kii kat duma ko jël parce que handicapé la mais nag am na daba mos na fi def émission boo xamante ni dañ doon wax ci wàllum école bi maanaam xale yi ni ñu mën fa mën am accès ndax léeg dañu am rampe wala chaise roulante la ñu nekkee c'est comme ci wàllu liggéey mais yéen seen wàllu association tey ñaata nit ngeen regroupé yi nga xam ne jot nañu jàng ba am seen i te ba léegi mënuñu fexe ba am liggéey xam nga li ma wax ci début bi CONAF Sénégal dafa regroupé ay association ci biir association yi am na ñi nga xam ni spécifiquement ci mbirum handicapé handicapé yi la ñuy liggéey mm-hmm. tey su ma jëlee ku mel ni Corif Corif euh, day toppatoo ay xale euh, di leen euh, toppatoo ci seen njàng di appuyer école yi di travailler ak inspection yi ba nga xam ni xale yooyu tey dinañ dugg su ma jëlee 2011 par exemple Corif def na benn étude boo xam ni au niveau de Louga rien la région de Louga identifié na fa 294 xale yoo xam ne nii handicapé lañu jànguñu te suñ la nee sur la population des personnes handicapées les 10 pour cent sont des enfants donc mu mu war la xamal ni la ñooñu état bi daf leen war a gestu suñu jëlee ci mbirum euh, éducation inclusive tey am na benn organisation boo xam ni mi ngi expérimenté école inclusive et teg na cinq école yoo xam ni ay xale ñoo ciy jàng muy Cheikh Mbow. Euh, voilà kooku itam. suñu partenaire la cinq écoles yooyu. ay xale yoo xam ne dañuy ànd ak laago ñoo ci jàng tey état su jëlee ci expérience boobu mën na ko lawal ba ci yeneen euh, région yëpp donc muy loo xam ne nii ci biir euh, njàngale mi dañu ni état na yemale te état nag ñun lu ñu def société civile dañuy jàppale état mm-hmm. mais njàng politique état la société civile bu ñëwee jàppale ko moo tax ñun dañuy def ay rapport su ñu defee rapport yóbbu ko Nations Unies ni ah situation xale yi kat handicapé yi fii la toll su ñu defee rapport itam yóbbu ko Union africaine nee nañ journée de l'enfant africain yóbbu ko Union africaine ni ko ah xale yi seen njàng des na mais xale yi aussi seen faju des na su ko defee ñooñu dañuy def ay recommandation état bu dugalee ci politique am déwan wala déwan jéeg mu gën a def yeneen jéego mais li ñuy wax mooy jot na sëkk euh, que gestu xale yi handicapé yi maintenant nag liñ koy ñaax mooy la loi d'orientation sociale ci la ñu waroon dugg mais xat na bi état voté <laughs> bi état voté en uh-huh. mu appliqué ko. na ko appliqué. tout à fait ndax nag. Uh-huh. Euh, kenn mënul appliqué loi daba mënoo ko fili mënoo ko man mënuma ko. Uh-huh. état moo ko mën. donc nag état euh, engagement yi muy jël ñi ngi koy ñaax na ko respecté. na ko respecté di nag profito. parce que mënuma dem. te interpellé euh, ñi nga xam ni ñooy candidat ci list législative yi. ñoom ñooy voté. loi yi. mais buñ ko voté ba pare. nañ ko appliqué nañ ko suivre. di ñaax état pour état. appliqué. Mm-hmm. moo tax nag dinañ leen lancer un appel. Mm-hmm. et peut-être daba sax dinañ am beneen jotaay bu gën a yaatu. parce que 2STV yaakaar naa ne léegi partenaire CONAF Sénégal la. dinañ am beneen jotaay bu gën a yaatu. Mm-hmm. ñu invité ñooñu nga xam ne ñi ngi bëgg ñu tabb leen ay député. mais buñ fa demee aussi bu ñu fàtte xale yi nga xam ne dañu ànd ak ay laago ndax ci askan wi lañu. te nee nañ xale mooy yaakaaru ëllëg kon boog bu ñu bedd benn xale. jërëjëf jërëjëf maam na waaye balaa may dem il faut ma yëngal gaa yi. ah déedéet moom foog mu fecc mais nag li ma bëggoon non rëgal bi rëgal bi non fii bul daw bul daw. tey jii ah fii ci kanam waañ bii maa ngi ñëw. naaj lay xoolal damay dem changé wu. Uh-huh. dem marché. waaw won gaa yi sama jaagar jaagar. waaye nag <laughs> daba soxna daba. maam Kounda bala may tëj. waaw bala may tëj. waaw may wax si euh, turu Konaf Sénégal. ak si turu xale yi Sénégal yëpp. Uh-huh. ni ñu ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire. voilà waaye kon nag maa ngi ñu nag. waaye baat bi nag neexul moom. Ah, ah, xale yi dafa waykat neexul. xam nga alto. am soprano. waaw yow ci basse catégorie waaye xam nga man li ma mënee daal mooy plaidoyer. pour xale yooyu plaidoyer laa bàyyi leen mag plaidoyer bi. <laughs> waaw ay ñoom xanaa daal ñooñu ñëpp daal. Uh-huh. nañu takk seen ndigg te xam ne maa ngi ñëw. bo yaa ngi ñëw merci beaucoup Mame Kouna comme ni ñu ko waxee je pense que législative yi mu ngi waaj ñëw Pape Alé mu ngi def ay plateau donc certainement question boobu dina ci jaar wala bu ci jaarloon na dina ko donc état bi je pense que dégg na cri de cœur bi on va juste rappeler que vous pouvez gagner de nombreux lots avec la 2STV tout cela pour vous remercier de votre fidélité vous envoyez le mot musique M U S au